ni dafa am beneen slogan ku lab sa yaay juraat gis nga ko. <coughs> gaa yi nuyu naa leen ziar naa leen jox naa leen seen waa ci waay dégg ngeen njiitul kër dof yi ah kàcckat la faraxalkat la meewkat la gaa yi nag dañ maa tere baat bi ma doon utiliser moo tax léegi dinaa ne ko kàcckat nga faraxalkat nga waxkat la ca ginnaaw dëgg nga. ba waan ëppoo yërmande yàlla ya suñu borom mi la sak ëpp ko yërmande yalla dogal nga yori milliard soxor ci ñaan yalla dogal ni man ma yor sama ñaax sama sëngal waye gisuma say milliard li ngay wax bu doon dëgg nga ne soo rombe ci àll bi gis neegum ñaax sa yaram day daw waxo dëgg nga taxaw ay yo nga yor neegu ñaax borom nga tabax ko ba karam ngay jéxal da nga ëpp yalla yërmande mom mi la may xañ sama rom da nga mëna def ñepp ay ay patron yow politique mënoo ko dang ko wara a politique du reuy làmmiñ ak di jekku presse bi sa yow wara ñu wuy si la ngay wax sa waxi daf ben bi ci top dégg na nga wax waxi nan Ousmane Sonko na jël sama bakkan ba mu jël ba jël basam yow da nga mëna sa baye Macky Sall mën ta jël bakkan Ousmane Sonko sa mam Antoine Diome mën ta jël bakkan Ousmane Sonko sa sa baye Bassirou Gueye mën ta jël bakkan Ousmane Sonko jëm nañ ko wut sa baye fi jaar yépp ëpp la moyen dàq la politique jàng politique mënul dara Ousmane Sonko surtout maa dof bu mel na yow. yow nag ku la je ku la yeewut lee nga lee nga lee nga lee nga tëppatiku nag say mbokk na ñàkk ci yow ñaar fukk balaa ti junni dof nga ba pare sa xàngeeku bi bépp li ko waral xam naa ko nga naan gat sax naan ma rey daa ma rey lii nag defar naa sama saak sama doom ji naan ma nii ma ne ko damay dem kaso demoo kaso da ngay dem élection demoo kaso de demoo kaso de kenn tëju la da ngay dem élection yow yaaraan def bo wuté permanence amo nga ne Macky Sall kale ma mëtaluma yow mii yaaraan tek say diil yaag Macky Sall nga nan fi bu ma dem élection sax dina wacc lu la tee dem am nga 15 millions bogaan permanence amut hi da ngay dem élection kenn du la tej kenn du jël sa bakkan do jël bakkanu kenn parce que yow ragal nga mosoo génn xeex mosoo dajam manifeste opposant bo xay mëno ñaan autorisation manifester yow do mëna manifester ana fi nit kii nga tegaloon sa sa sa responsable bi nekk Ndaka ñaaw nga ne moo ne ko demal ànd ak Bassirou Diomaye Faye yónnee leen koy moyen mu ne mille sept quinze mille euh, cent cinquante mille ngeen ko jox fenaloo ko woon ay fen baaxut kenn du la tëj yow doo jël bakkanu kenn kenn du jël sa bakkan yow melantaan sax mënoo jël bakkanam ndax amoo fit lenn daal laa xamal mooy campagne ngay bañ dem élection da nga ca dem kowaat kowaat cohabitation boobu ngay wax xam nga ne ko la yaakaar loon ko na ndax yow mi nan defar nga sab sar pour dem kaso demo kaso baye yëfi karim khurum xàq yi bu élection jige nga tàppaas ngor gi ñu tëj la mom bu bu événement jote mu tàppaas ngor gi ñu tëj ko ba sa caaxaan yi nga nek bogaan da ngay dem election ak force da nga ne am ngay militant am nga parti ya bi ñële Ousmane Sonko xam ngeen ko bi jëru ko jakka jaji kuma no may nga damay dem kaso do fi demé kaso da ngay dem election wa néegi ñax yi nak da ngay gis ba keroog ngay dé ndax fi la sa baye rom néegi ñax yi mënu ci dara nga romb si néegu ñax yi mënoo ci dara yàllaa bind te yëmalewul ëppoo yërmande yàlla ba campagne bi politique da ngay xam li ngay wax xamoo dara ci li ngay wax yow ñi la wër xaaj bi ay pauvre lañ mënuloo leen dara sa journaliste yu barke Seydina Mohamed kenn ku ci am sa kër bopp amul xaaj bi yëpp dañu luye te kenn nga ci dul fayal weer man ngaa tabaxee kër may leen ana say doomi dañoo nekk milliardaire am na ñoo xam ne ci néegi seng néegi yu xadde seng la ñuy fanaan bugaan bul dimbaleel nit ñi sar du tegg gan du deug li ngay wax dara nga ci gëmut waxo benn deug dimbalé wo say mbokk bay romb neegi ñax malay nakari yow bo feneen ñepp dekk ci neegi ñax nga dekk ci terrasse wa yalla dogalul lolu bo gëmoon yalla ba yërëm boroomu neegum ñax li yalla defal Ousmane Sonko nga nang ko iñan tonku mur yalla moy maye sër wéccé wi nga yor nak nga xam sacc xaliss xaalis nit ñee la ko may tax ngay xagne ko rang rang barké sayyidina Muhammad ci politique bi lay jéxé tam mairie do ko gagné yaa fi ñing fi ngaan sama saag sama doom ji kaccal nga sa doom ji de kaccal nga sa doom ji de sa doom ji gisul sax de na na na prison de mo prison de mu so fe wax waxi prison ku la yob prison da nga wax lu na yob prison yow manifeste woo saaga wo yow kay kàcc rek nga ci pénc mi di ko def gis na ñu la dàq kàcc ñom pétin ñepp ngi di kàcc ken yóbbu len kaso lu la yóbboo kaso bu la nexe tok toog rek maye ka lebe def ku la kasso kaso mo kaso campagne ngay def dem ha election nga jëm de mo